dëppoo na ak nit ñu baax ñi ak sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, bis yépp la daan wormaal ci weeru koor waaye rawatina fukki fan yu mujj yi ci weer wi daan na ci toggoo ay xeetu jaamu yàlla yoo xam ne ku nekk day xam ne am na lu yees soobuwaat beneen soobu bu yees nga xam ne ñu bari ci lañuy def al i'tikaaf dëkk ci jàkka yi ak jumaa yi ba keroog euh, euh, koor gi di jeex ngir dabuwaale xéewalu laylatul xadr ngir dabuwaale yool ba rekk ñi deful loolu itam di ci def ay xiyaamul layl di ci taxaw guddi gi di ci yokk lañ daan def kon yàlla nañu yàlla fulal jaamu yooyu te làqal ñu ko ni mu ko diggee moo koy fayal boppam kenn du ko fay koor doxalewu fi diggante ak kenn moo ko yoral boppam di ko fayal boppam suñu yegsee nag ci jamono yi dina am ci njàngalem lislaam loo xam ne eh, di jar na di xoolaat di ko di ko nafar mooy li ñuy tuddee azakaat mooy ahkaamu zakat maanaam attey azaka ndax azaka dafa dugg ci Eh, li nga xam ne sunu boroom da ko joxe comme ay jumtukaay jumtukaay yoo xam ne boo ko xoolee raaya ba maanaam eh, eh, dayo ba fu mu jëm mooy day xeex ak ñàkk waaye day saxalal day saxal dimbalante ci sunu biir ñu koy tuddee solidarité maanaam dimbalante ci sunu biir nga xam ne jullit bi dafa war a dimbali moroomu jullitam mbooloo dafa war a dimbali moroomu mbooloom ba nga xam ne kenn du jàmbat ñëpp dañuy man seen bopp loolu mooy objectif mooy hëdafu zakat nit ñi mën seen bopp ba kenn ku ci nekk eh, lu mu soxla mu defal ko boppam ci wàllu dund ci wàllum pàcc ci wàllu njàng ni ko ñëpp di defee lislaam loolu moo tax mu farataal azaka bokk na ci beneen bi nga xam ne moo tax mu farataal ko mooy day laabal alal ji xuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha dana yàlla dafa wax yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko na nga jël ci alali jullit ñi azaka ndax day laabal dégg nga seen jëmm yi laabal jëmmi alal ji wa tuzakkihim biha eh, mooy daf leen di tazkiya tazkiya mooy avocat maanaam alal ji boo koy joxee bu yowmal xiyaamee day doon awoka sa digganteeg sa boroom loolu mooy tazkiya wala tuzaku anfusakum balillah yuzakki man yasha nit du fóot boppam yàlla mooy fóot moo tax mu ne alal boo ko joxee eh, dina la sellal waaye dina la laabal ni mu la koy defee ci sa jëmm noonu la koy defee ci alal ji kon azaka mooy lan azaka mooy benn kem la boo xam ne yàlla sunu boroom daf ko waral ñu war koo génne e, ci sunu biir alal natt ko e, génne ko te bu boobaa moomatuñ ko ñi yàlla lim ci e, alquraanul karim ne mooy ñi nga xam ne dañoo ñàkk mooy fuqara masaakiin yi al muallafati ñi nga xam ne dañoo bëgg a miinal seen xol lislaam wal aamilina aleyha ñi ciy liggéey koo xam ne ba jaam di am eh, maanaam njotam boo ko ko joxee mu mu jot boppam eh, kooku ku jëra jox asaka la ba muy am ba mu amatul tamit am na ñoo xam ne ci wàllum eh, bor yàlla lim na ko ci aaya bi waaye da ciy duggaale koo xam ne fa mu ne bor moo ko fa bàyyi ak ñàkk man kooku tamit kuñ mën a jox asaka la noonu la ko limee ci aaya bi juróom-ñetti nit ñi nga xam ne dañ leen di jox azaka ñooñu ñu ngi ci alxuraan azaka jooju nag buñ ko génnee euh, dañ koy jël jox ko woy ñàkk bi natt ko ba mu mat donte doonte donte dërëm da ko cee jël mën naa yàq barkeb alal ji te dafa mel ni aalam al islaami àdduna bi monde islamique bu ñu jëfande woon ndigalu yàlla lool yi ci wàllu azaka dina néew nga gis ku ñàkk dina néew nga gis kuy jàmbat waaye boo gisee jàmbat bari ñàkk bari dafa fekk ne ni ñu war a jëfandikoo azaka dëgg dëgg dëgg dafa des levier bi levier wu solidarité la maanaam jumtukaay yu dimbalante la loolu dafa war a dafa war a leer si bopp jullit ñi nga xam ne ñooy joxe azaka te buñ koy joxee ñu joxee ko joxin wu am solo boo xam ne nit ki dana ko mën a jariñoo donte da ngay gis koo xam ne dafa yor métier waaye dafa soxla jumtukaay nga nga jëndal ko jumtukaay bu ëllëgee du laaj azaka di joxe azaka loolu loolu baax na bokkul ak nga jël azaka ju bari lem ko ay ñeenti téeméer walla ay junni di ko joxe ki nga koy jox léeg-léeg mu jariñ ko léeg-léeg du ko jariñ li lislaam bëgg daal mooy boo ko joxee nit ki mu war a génn ci rangu ñu ñàkk ñi dem ci rangu ñu am ñi loolu ñuy joxe azaka nañ ko bàyyi xel bu baax a baax euh, atteem nag ci lislaam moom ponk la ponk mooy comme lii ñuy def muy julli nit ki bu seedee ne yàlla buur la te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la yónni ci nit ñi kooku wàllu pas-pas la kooku dugg na ci lislaam bu ko nit ki sedee rek donte ci xolam la dugg na ci lislaam waaye nag bu ko waxee mooy tax jullit ñi mën a jëflante ak moom loolu la ñuy tuddee charte li maanaam nga jekki-jekki yëkkati sa loxo daan ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah boo ko waxee day tax jullit bi nga dennal xam ne yow bokk nga ci lim bi muy jëflante ak yow jëflantewu wu jullit soo ko waxul tee ko ci sa xol xol bi dugg na ci lislaam waaye say moroom duñu xam ne bokk nga ci diine ji moo tax boroom xam yu bari dañoo dëpp ne wax ji munta ñàkk ndax charte taamul yi la ndax ki munta wax xiyaas ko am na koo xam ne yàlla da koo bind xëy na munta wax am koo xam ne munta dégg ñooñu seen ñàkk wax googu mënu leen a xañ dugg ci lislaam ndax xol ba dugg ci lislaam bu ñu ay junj junj mooy wuutu seeni wax bu ñu bindee seeni bind mooy wuutu seeni wax kon ab xol mooy dugg ci lislaam moo tax nit ki ñu koy jàngal saa su ne muy tajdid imaanam muy beesal ngëmam ndax al imaanu yazidu wa yanqus day dolleeku ci jëf yu baax waaye day wàññeeku ci jëf ay safaan yonent bi sallallahu dafa wax ne nit ki jamono ji muy def lu bon jamono jooju du jullit jamono ja na bu fekkoon ne teew na xuduur li ñuy tudde al xuduurul islaami mi ngi ci xolam du cëri yi tax duñ mën a def lu bon kon foofa am na lu faay ci wàllu pas-pas moo tax ñuy bëgg nit ki fu mu toll di beesal pas-pasam di toog di ko xalaat di ko càmbar digganteem ak boroomam fu mu tolloon ak fu mu toll tey loolu wàllu pas-pas la bu pas-pas weesoo nag yàlla daal di dugal cër yi ndax cër yi bu ñu leen defalee yar e, am lu ñu leen defal si yar ci wàllum julli nga xam ne dafa boole teewlu boole yëngutu yaram wàllu koor ci tarbiya nit ki ci wàllu xiif ak xiif ni mu amee solo ci dundu doomu aadama tarbiya ko ci wàllu congrès bu mag a mag boo xam ne ku ko man danga fay dem ku fa demul tam danga ko dégg wala da nga ko gis muy aj màkka ci wàllu tam azaka nit ñu di dimbalante loolu mooy jëf yi yi nga xam ne ñooy mottali pas-pas ndax nit ki bu fekkee ne dafa ne am naa pas-pas waaye du dimbali moroomam am naa pas-pas waaye du may yëngal sama yaram ngir ngir yàlla am naa pas-pas am naa alal waaye eh, jaraluma dem fa ñëppi daje dañuy wax ne ah kon pas-pas bi dafa am lu manqué ndax lislaam juz'un la yatajaza'u xaaj la boo xam ne duñ ko def ay pàcc doo jël li la neex bàyyi li ci des da koy jëlandoo benn yoon ngir mu tudd lislaam waaye nag jëlandoo boobu bunt ba mooy li ñuy tuddee al i'tiqaad mooy pas-pas bu ngeen xoolee Euh, Cheikh Ahmad Bamba bind na si téere bu am solo ñu koy tuddee Mawaahibul Xudduus téere la boo xam ne téere tawxiid la day jàngal nit ki lan mooy pas-pas li ëpp ci tawxiid boobu sax tawxiid irfaani lañ koy wax maanaam tawxiid bu làq tasawuf ndax tawxiid dafa yomb rek nit ki ne ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah te du jëf lu ko nuru moo tax bi mu bindee téere boobu mu ne nag dafa am lu ñu ciy dolli ñu koy tudde sellal sellal mooy a tawxid al irfaani wax baat yi rek kooku tawxid kalaami la a tawxidul kalaami moo lay jàngale ne yàlla kenn la nga ne waaw yàlla ku fi yàgg la nga ne waaw nuroowut ak nit ñi nga ne waaw soxlawul kenn nga ne waaw loolu ay baat la li koy jëmmal mooy al irfaan loolu mooy tasawuf moo tax loolu nit ki da ko war a càmbar dégg nga bu baax a baax ndax lu am solo la ci biir li koy jëmmal nag ci lañ dugal azaka mooy nit ki nay génne ci alalam as lëf dégg bu charte yi matee di ko jox ñu ñàkk ñi ndax mooy tax mu nekk dëgg-dëggi jullit ndax su ko deful moom dafay xaaj lislaam te lislaam mbir la moo xam ne wërngël këpp la nanguwul xaajoo moo tax boroom xam-xam yi dëppoo nañ ci ne ku bàyyi yi génne azaka te weddi ko daan ne azaka amul kooku génn na si lislaam dafa murtad charte ku ku weddi julli moo koy dal ki bàyyi julli te weddiwul julli kooku murtadul dafa moy ki bàyyi azaka te weddiwul azaka murtadul dafa moy murtad mooy génn ci lislaam waaye ki ne nag loolu amul solo amul benn sens may dajale sama xaalis mu doon ay million ma koy takk di ko jox julli loolu amul fenn bu ko weddee rek day génn si lislaam kooku yustataabu bu fekkee ne dañuy taxawal lislaam dañ koy tuubloo ñetti fan dégg nga mu war a tuub su tuubul lislaam day dal ci kawam loolu tamit lu jar a xam la ci nit ñi nga xam ne taxawuñ ci azaka niñ ci war a taxawee tamit euh, atte boobu bu weesoo doon ponk azaka dafa am ay ngëneel yu bari mooy ngëneel yi day jegeel nit ki boroomam ndax alal dafa taq ci xol te yàlla day tarbiya xol nit ki fekk xol bi setagul doonagul nit dëggantaan moo tax yàlla sax yowmal xiyaam dafa ne ku am alal yu bari ak doom yu bari duma ko duma xool loolu damay dugg ci sa xol xool ko nu mu def yowma laa yanfau maalun wala banuun illa man ata allaha bi xalbin salim ku ñëw ci man ëndaale xol bu set dinaa xool say mbir bu ëndaalewul xol bu set nag duñ jëflante ndax la nga doon def newul ca pas-pas ba ndax pas-pas bi bu ci nekkee rek mooy baatu seede yooyu nga waxoon rek faw xol bi day rafet loo yéene sa bopp yéene ko ñi ci des dégg nga looy defal sa bopp defal ko ñi ci des soo ko mënee loolu mooy pas-pasu dëggantaan waaye jullit du wax ne man mucc naa ñi ci des lu ñu def baax na loolu jullit du ko def ci wàllu azaka tamit noonu la demee moo tax yàlla dafa wax ci alquran aaya bi nga xam ne firi na azaka dafa ne xad aflaha almuminuun alladina hum fi solaatihim xaashicuun walladina hum an illaxwi muriduun walladina hum lildakaati faaciluun ñi nga xam ne ay jullit lañ ñoom texe nañ daal indi nag ay critère daal ne ñii lay ñii lay wax ñi texe mooy ñan mooy ki nga xam ne day julli di ko def ci ragal yàlla ak toroxlu bu rombee am fo da koy dëdd yoonam newu ci day joxe azaka lépp bi ko pas-pas lalee lépp bi ko pas-pas lalee mu ne kooku yàlla nee na xada aflax kooku texe na léegi moo tax azaka li koy firndeel ci lislaam bari ci biir alquran ñu gis ne tam am na beneen aaya buy wax ne inna alladina yatluuna kitaaba allahi wa aqaamu salaa ñi nga xam ne dañuy jàng alquran tilaawatul quran di taxawal julli wa anfaqu mimma radaqnaahum li ñu leen wërsëgal ñu koy nangoo bokk sirran wa alaaniyatan di ko def ci secret ci suuf kenn du yëg léeg-léeg buñ gisee ne buñ ko defee ci kaw am ñu ko jëriñoo toppandoo leen waa alaaniyatan ñu def ko ci kaw loolu wàññiwul dara yàlla mu ne yarjuuna tijaaratan lan tabuura ñooñu de fi ñu dugal seen commerce bi du perte ndax danañ am bénéfice yarjuuna lan tabuura li yuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun shakur yàlla borom yërmande la ko mën a jéggale la lool euh, jële nañ tam si xadiis yu bari ñu wax ne yonent bi salaa sallam daf ne assalaatu nuurun wassadaqatu burhaan julli day def leer ci doomu aadama waaye sarax day def lay aw lay la yowmal xiyaam sa diggante ak sa borom moo tax yàlla fonk ko lool ndax dafa sax ci xol doomu aadama bu koy joxe te gëmu ko du ko mën a def bu ko gëmul du ko mën a def loolu moo tax boo gisee ñu laltaay yooyu jamono jii ñu toll nii dafa doon jamono koor am ñu bari ñoo xam ne dañu ciy faral di génne azaka mooy nga am alal bu mat nisaab nisaab mooy nga am kem buy tax ne lislaam ne yow am nga alal boroom xam-xam yi ñoom ñoo xam niñ koy natte di ko natt ca diinaar bu njëkk ba wala ñu koy natt ci misqaalu zahab dégg nga ishruuna diinaaran la ñuy wax ñaar fukki diinaar di wax mi mi'ata dirham ñaari téeméeri dërëm ci yooye yu njëkk ya buñ ko méngalee ak léegi nii ñu bari def ijtihaad daal nit ki daal bu amee lu tollook euh, masalan juróom-ñett fukki garaamu or ak juróom Euh, mu dem laaj li garaam di jar ñu ne ko nangam lay jar mu ful ko ci juróom-ñett fukk yooyu ak juróom euh, dégg nga am na nisaab war naa mën a génne azaka masala ñu ne la garaamu or vingt mille lay jar nga jël vingt mille daal di koy ful multiplier ko si quatre cinq mu jox la benn somme ñu ne ah somme bii bu fekkee ne mat na at bi nga ko yoree ak léegi mat na at te wàññeekuwul yéesu yéesul nisaab ba kooku war nga cee mën a joxe azaka ba pare nga moom ko te doonut ay bor ci yow war nga cee mën a joxe azak yooyu yëpp am na ay charte yoo xam ne bu ku si bëgg a yaatal boo demee fa nga dëkk ca imaam ba ak boroom xam-xam ya soo leen laajee dinañ la ko leeral ba ba mu leer waaye ci jamono yi nga toll yi ñu toll nga xam ne jamono yi dafa am lu xew ci dëkk bi muy natt boo xam ne suñ boroom moo ko teg te nattu moom nattu la am na ñoo xam ne sax dañoo gis ne nattu bu baax la ndax delloosi na lu bari ci ay waleeru lislaam yu bari yoo xam ne lislaam daan na ko tere wala muy wax nit ñi ñu koy def xëy na fonk ñu ko niñ ko war a fonke ndax gisuñu woon njariñ li dëggantaan e, jàpp jàpp juróomi yoon jàpp juróomi yoon ci bis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy jàngale julli dane woon yéen ku amoon dex ci buntu këram e, bis bu ne mu sangu ci juróomi yoon ndax yaram wi dana des tër ab tër ñu ne ko déedéet mu ne noonu la julli mel te xam nga julli dafa taxoo ak njàpp kon bu ñuy wax nee raxas leen loxo yi de leen set lislaam ba mu ko waxee junni at ak nàngam la waaye dafa dañ ko war a xam war a xam li muy jariñ ak e, e, e, lan lañ ci mën a jëriñoo ñu koy jàngat fu ñu toll kon jamono yi jamono yi dimbalante la jamono yëpp ci lislaam jamono dimbalante la moo tax lislaam faratal azaka faratal li ñuy tudde alhibatu mooy maye faratal sadaqatu tatawwu saraxe ci coobare faratal hadiya ah bu ngeen dee joxante hadiya da ngeen soppante ci seen biir yii yëpp ay jumtukaay la yoo xam ne boo joxe woon sa azaka ba sax ba noppi sax yow mu leer na ne dese nga lu bari jëlaatal leen leneen dolli parce que islaam ubbi na la bunt boobu loolu yëpp war nañ koo mën a jëriñoo ci jamono yi ñu toll nga xam ne nit ñi dañoo soxla ndimbal ndax ñu bari jàngoro ji xew euh, xañ na leen seeni liggéey ba mënatuñ koo def nañ ko waroon a defe ñenn ñi nga xam ne ñi ngi liggéey itam lañ daan am mënatuñ koo am loolu lépp nag ñi nga xam ne yàlla sunu borom dimbali na leen war nañoo gestu ñooñu ndax amul jaamu yàlla gu ko gën a màgg julli woo baax na woor baax na lépp baax na waaye joxe wa aatal maala ala xubbihi joxe alal te bi nga koy joxe sax yow bëgg nga ko loolu lu am solo la loo xam ne fi mu la mën a féete amul benn jaamu yàlla bu ni mel kon azaka jaamu yàlla la ci wàllu alal jaamu yàlla la ci day setal yaram da koy laabal day setal ruux jaamu yàlla la day ñoŋal alal dégg nga ci yàqu ndax bari na ay ahadis yoo xam ne ñàkk joxe azaka mën naa ñàkk a wàcce barke ci alal jooju nga xam ne nit ki da koy wut ba am ko tolof tolof di ci tàbbi lu ne di ci dem nga xam ne kenn du wax ne nag fu tolof-tolof amee ci alal lool la waaye léeg-léeg ñu méngoo ñoom ñaar azaka dafa am fonction sociale dafa am lu ñu tudde azakat wazifatun ijtimaia dafa am liggéey bu muy def ci wàllu société li muy def mooy day aar société bi ci li ñuy tudde toroxtànge day aar société bi ci ak suufe kenn ku ci nekk am ndoxum bëtam mën a dox soxlaam ci sutura te kenn du ko xamal dara te loolu lu am solo la allahu fi awni al abd maa daama al abdu fi awni axi ndimbal la lu bari nit ki yàlla da koy taxawu saa su ne feek moom mi ngi taxawu ay moroomu doomu aadamaam kon eh, déggiinu azaka si lislaam daal mën naa def lu bari ci xeet wi su fekkee ne jëf nañ ko doxale ko niñ ko war a doxale ndax eh, eh, day fekk ku xiif mu jox ko mu lekk day fekk ku doon laaj mu toogloo ko këram day fekk kuñ xañ mu woomalal ko day fekk ku doon jàmbat ak ñàkk mu fexe ba dootul ñàkk yooyu noonu nañ ko bàyyi xel lu baree bari ñi nga xam ne nag war na leen mooy ñi nga xam ne ay jullit lañ loolu moom taxsilul xaasil la loolu ñëpp di xam la waaye azaka ki koy def jullit lay doon keneen ku ko def te du jullit kooku moom jëf ju baax la yàlla ku maandu la wa ma rabbuka bi zallaami lil abid jëf sax moom yàlla nee na dañ koy jiitalal ñi ci def lu baax te duñ jullit danaa leen ko jiitalal ay fay ndax yàlla dafa maandu waaye jullit moo koy def ngir am yoolu azak xaalis bi day mat at day mat nisaab dégg nga noonu la ba mu des atakay mbay moom nit ki du ci xaar at wa aatu xaqahu yow ma xasaadi bu fekkee baykat la bis bi mu góobee rek day génne azaka wa laysa fi ma duuna xamsati awsuq sadaqa bu fekkee ne lim bay matul juróomi awsuq awsuq ci nattukaay yi ñenn ñi ci mazhabu imam malik daanaka juróom fukki kilo ñu bari moom lañu wax gis naa ci mazhabu xanifa ak ñeneen ñuy wax juróom-ñaar fukki kilo waaye loolu bu ko fulee ba mu mat ñaari téeméeri kilo ak juróom fukk rek kooku war na cee mën a génne azak bu fekkee loo xam ne yàlla moo ko taw mu am ko ci bu nattee juróom-ñeent ba ko fukkeel mooy azaka ji bu fekkee ne moo ko rooseel boppam bu fukkeel boobu mu xaaj ko ci digg bi mooy azaka ji ndax li mu yor sell loolu mooy li nga xam ne moom lañu ñu war a def ci wàllu mbay naka noonu mënees naa génne azaka ci affaire mine xam nga léegi ay mine mi ngi xew ñu koy wax ci Sénégal ay pétrole ak mine daal miin loolu buñ ko génnee sax mën naa jariñ lu bari dégg nga ci lu ñu loo xam ne e, e, e, jëmm azaka jooju moo koy taxawee ci ci ci dépense ku yor xale bu ndaw tam boo xam ne masalan dafa donn alal nga yor ko alal ja day génne azaka ndax alal ji toppul azaka toppul nit ki alal ji la topp même boo yoroon koo xam ne xelam dafa wàññeeku ci sa biir kër waaye am na alal joo xam ne moom la topp moo ko moom alal ji day génne azak moo tax yonent bi sallallahu alayhi dafa wax ne xeetu alal yooyu buñ ko bàyyi muy tëdd azaka ji da koy jeexal bu yàggee ki ko yor na ko toppatoo bañ ciy mën a yaxantu ndax azaka di ci génn ba pare capital bi di fi des bay dooleeku sax loolu tam lu jar a bàyyi xel la si liñ war a def mu yonente mu ne ittajiru fi maalil yataama li alla taakula ha zakat na ngeen di commerce si alal jooju ngir azaka ji bañ koo jeexal xaaj yi mu am mooy kon xaaj yooyu nga xam ne wax nañ ko léegi am na lu ñuy tuddee zakatu rikaz mooy ay euh, mel ni ku foroon mbàndu euh, or wala dara ci nit ñu njëkk ña fañ dëkkoon nekkatuñ fa ba mu yàgg kenn kenn kenn déclareetu ko nga jékki-jékki mu génn sa kër wala nga for ko loolu am na nu ñu koy génnee azaka ci wàllu xumus dégg nga yooyu yëpp euh, da ngeen di dem ci borom xam-xam yi ndax jotaay bii du ko mën a teqale ba mu leer waaye li ñu am solo fii tey mooy nit ñi nañu bàyyi xel azaka ak njëriñ li nga xam ne da koy def ci biir société rawatina bu société bi nekkee ci ay ay coono ak i tolof tolof yu mel nii ñu wax ne euh, bu loolu weesoo am na lu ñuy tuddee azakay muurum koor te azakay muurum koor ci jamono yi war nañ ko waxtaane jamono yi war nañ ko waxtaane ndax asakay muurum koor moom tam sunna am na ñoo xam ne sax ci alquran dañu ne xad aflaha man tazakka wa zakara sma rabbihi fa salla asakay muurum koor moo ko taxa wàcc asakay muurum koor moo tax aaya boobu wàcc te yonente bi salaa def na ko saxaaba yi def nañ ko ñoom niñ ko daan defee mooy dañ ko daan dafa doon lu war njëkk nit ki julli ji waaye ci ijtihaadul ulama boroom xam-xam yu bari ci seen jihaad te seen wuute boobu mën naa doon yërmande ñu ne dagan na dagan na nit ki joxe ko ñaari fan walla benn fan njëkk ñuy julli ji korite ngir jot objectif ba mooy lan nit ki bis boobu du du dem di laaj kenn dara day mën boppam jënd lim soxla toppatoo ay doomam ak njabootam too këram def li ñëpp di def waaye waruñu ko seetaan muy dem di tàllal ci bis boo xam ne bisu feet la ci lislaam kon euh, xaaj bu njëkk bi dafa jot ñu taxawandi foofu incha allah ba ñu nodd ba pare ñu ñëwaat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 حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح أكبر الله أكبر لا kon ñu wéyal fi ñu yemoon ñu ngi duggoon ci azakay murum koor lépp nag mu bokk ci jumtukaay yi lislaam yi nga xam ne dimbalante ak xeex ñàkk moo ko waral ñu ne azakay muurum koor farata la joo xam ne bu ñu demee ci alxuraan dañ ciy sukkandikoo ci waxi boroom xam-xam yi ñu ne bismillahi rahmaani rahim qad aflaha man tazakka wa zakara sma rabbihi fa salla aaya boobu saxaaba yu mag dañoo wax ne ubay bun kaab abdullahi ibnu abbas ñu ne azakay muurum koor moo tax aaya boobu wàcc te bu ñu xoolee ci jëfi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gis nañ ne daan na ko def saxaabayrul kiram tam daan nañ ko def kon loolu sax na ci diine e, ban xereñ moo ne ci ginnaaw di ko def ñu ne day laabal aji woor ji ndax léeg-léeg nit ki ni mu néewee doole yàlla di wax wa xuliqal insaanu daifan tawat ji am dañ ko ci yëg aaya boobu nit dafa néew doole néew doole googu nag dafa tax ñu bari ci doomu aadama yi duñu ñu mën a matal seeni jëf ba mu mat li ñu war a moytu tam duñ ko matal ba mu mat day am yu leen di rëcc moo tax rëcc-rëcc yooyu nga xam ne teyuñu ko di ko def ñu ne nit ki bu joxee azakay muurum koor azaka jooju day laabal koor gi eh, dimbali ko wuutu ko ci jëf yooyu nga xam ne moom la doon def ay mbóorent walla ay jëf yoo xam ne daf ko rëcc ci biir weeru koor bi loolu mooy benn ma bu njëkk bi Eh, nga xam ne xereñ lañ koy tuddee ñaareel bi mooy azakay muurum koor day tax aji ñàkk ji du wër ci kër yi di tàllal loxo bi su feet ñaar yooyu rekk doy na sëkk ngir wax ne eh, kon azaka ji farata la kan moo ko war a def jullit bu doon gor ba noppi am lu mën a génne am lu mën a génne ndax lislaam laa yukallifu llahu nafsan illa ma ataaha yàlla du teg nit loo xam ne joxu ko ko du teg nit loo xam ne tam munu ko waaye foofu nag si asakay muurum koor teengal nañ ko ba nga xam ne dañ ne nit ki donte faqiir la bu ko ñu bari joxee sax moom na génnewaat joxe seet ku mu tane mu jox ko kon noonu la mbir mi demee ki ko war a joxe da koy joxeel boppam joxeel ko njabootam mel ni soxnaam ak doomam ak ñi nga xam ne moo leen yilif ci biir këram nga xam ne seen dund ci kawam la tege ñoo ñëpp moo leen koy nattal génneel leen ko waxtu wiñ ko war a génne mooy fajaru bisu ayit loolu mooy warteefi ndax noonu la yonent bi daan def saxaabatul kiram loolu lañ daan def waaye góorgóorlu yi boroom xam-xam yi ni ma ko waxee léegi moo indi ngir gën a jam li ko tax a jóg ci jamono yii ñu ne mënees na koo génne benn walla ñaari fan njëkk ñuy ñuy ñuy ñuy def korite gi bu ko defee nit ki day mën a waajal boppam bu waree dem ca marché ba jënd yére mu xam ko su waree jënd dund mu xam ko su waree jënd ndawal lu mu bëgg a jënd rek mu mu mu jënd ko kem bi nag li nga xam ne noonu la war a toll dañu ne saa saa mooy nattuwaay la boo xam ne nit ku diggu doomu moo koy natt ci ay loxoom bu ci nattee ñeenti mudd ñeenti mudd boobu day tolloog saax léeg-léeg da nga gis ci e, marché yi wala bu waxtu yu tollee fii am ñu koy jaay di ko wecc ko waaye bu loolu amul tamit am na ñu ci góorlu ba gam-gamle ko ci ñaari kilo wala ñaari kilo yu yées tuuti waaye e, ginnaaw yées tuuti lañuy wax def li gën a mat rek nga xam ne day ëmbaale lépp day baax loolu ñu bari ci boroom xam-xam yi wax nañ ko ñu ne tam dagan na nit ki génne ko ci xaalis loolu tam ijtihaadul ulama la ndax bu njëkk ba yonent bi da ko daan génne ci li not ci dund foofa ñoom tàndarma ak dugub ji ñu tudde sha'ir moo ëppoon ci ñoom te booba moom lañuy ñuy dunde ñoom moom la ñuy dundee tàndarma dañ ciy defar ay cereeg lu ne moom lañuy dunde booba loolu lañ daan génne waaye boo jógee foofu lislaam yaatu ba génn foofa dañuy xiyaas natt ci loolu ne kenn ku nekk fa nga ne la fa gën a not ci dund mën nga ko cee natt génne ko li nga xam ne moom ngay jëfandikoo bu boobaa loola boo ko defee xaalis dana baax ndax xaalis bi dañoo gis ne bu ñëpp jëlee azaka ji masalan comme Sénégal ceeb moo ëpp ñëpp jël ceeb jox ko euh, woy ñàkk bi ki ñàkk day mujj jël ceeb bi di dem ca bitig ba di ko jaay mën naa am sax ñu damm njëg gi wala dootu ko jëriñoo ni mu ko war a jëriñoo ginnaaw loolu lay defi bu ñu ko joxee xaalis bi mu jënd lim soxla ci ceeb jënd lim soxla ci leneen dese weccet def ci poosam ñu ne kooku kat ware war naa mën a nekk te xam nga lislaam euh, lu yaatu la lu bëri yërmande la am na tegtal loo xam ne dañ koy jëlee ci alxuraan yàlla moo ko waxal boppam mu leer nàññi su leerut nga xam ne taqale wuñ ko sunna ñëw taqale ko su ko yàlla tënkee sunna teqe teq teqee ko ba mu leer noonu moo daan am waaye si usul saxal nañ ne tam boroom xam-xam yi bu charte ya dajee ñu koy tudde al ijmaa suñ dajee ci dara waxandoo ko loolu ci turu yàlla lañ koy wax ak ci turu yonente bi sallallahu alayhi wasallam loola day sax ci diine ñeenteel bi daganal nañ xiyaas mooy ñu natt li amoon ci li am tey di ci génne ay atte bu ko ñi ko war a def defee bu boobaa itam loolu dañ ciy mën a def sëslaay ci diine loolu moo tax tegtal yi ci sharia yi nga xam ne kenn du ci wuute dafa toftaloo ci téere yàlla bi alquran sunna ijmaa alxiyaas loolu mooy li ñuy tuddee al adillatu al muttafaqu aleyha ñëpp d'accord nañ ci am na yeneen tegtal yoo xam ne nag dégg nga ay masaalih mursala la ak yooyu yooyu ay adil la al muxtalaf ay intérêt la yu bees yoo xam ne boroom xam-xam yi wuute nañ ci loolu tam lu yaatu la kenn ku ci nekk bu amee fu mu sukkandiku fu wér da koy mën a def lii jëm ci jël xaalis def ko muurum koor kon daganal nañ ko ci téere fiq yi fi mu nekk nii ñu ne nag li ci gën mooy nga jox ko woy ñàkk yi nga xam ne ñoo la gën a jege loolu moo ci gën ndax boo leen jéggantoo am na sax boroom xam-xam yoo xam ne tere nañ jéggantu bi dend koo xam ne faqiir la nga tëb ko jox keneen waaye itam àdduna nu mu bindoo daanu du daj suuf kenn du mënandoo lépp moo tax boroom xam-xam itam daganal nañ ne nit ki mën na cee jokkaale mbokk mën ngaa jox koo xam ne xarib la mbokk la mu jege waaye nag yayoo na ko nga jël ko jox ko ndax loolu dana def ñaar dana def azaka ji ba pare dana doxaale ak mbokk te yàlla sunu borom dox mbokk dafa am lu mu ci diggee bu ko defee day doon wenn xeer woo xam ne day jam ñaari picc waaye li am solo daal mooy eh, nañ ci xalaat ñi nga xam ne eh, way ñàkk lañ rawatina ci waxtu nattu wi nga xam ne dañ cee nekk maa ngi ko waxoon léegi bi may wax azaka yi alal yi nga xam ne day mat at bokkut ak azaka ji may wax nii ñaari xeetu azaka lañ si lislaam lépp ay jumtukaay la yoo xam ne day dimbali nit nattu nag moom bu amee yàlla suma boroom dafa ne si wala nabluwannakum bi shay'in min alxawfi wal juu xiif nattu la min alxawf wal juu ragal nattu la juu nattu la mooy xiif wa naqsim min al ñii di liggéey seen xaalis matatul nattu la wal anfus léeg-léeg sax nit yàlla jël bakkan nattu la dañ koy dégg lu bari ci ci li xew fan yi wa samaraat léeg-léeg nit ki ah, gàncax gum yaakaaroon du mat waaye nag yàlla li mu tëje aaya bi mooy wa bashiri sabirin na nga bégal ñi nga xam ne natt boobu duñ ko xarab waaye dañ koy muñ ndax jullit dafa war a muñ lu xew nga coow ba géex wax ci loo warta wax mën nga cee am daanu sunu borom waaye nag sañ ngaa muñ te jël say matuwaay loolu mooy wala tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu nangeen rafetal ñu bari si mufassirun ñiy firi alquran dañ ne ixsaan ci loolu mooy sukkandiku ci li xew buñ jëlee matuwaay nga jël matuwaay du tere nag nga dékk say loxo yàlla wàkkilu ci moom ndax moo war a jiitu ndax yàlla moo saxal ne yii yëpp bu xewee maa ko def nattu la wala nabluwannakum bi cheyin min alxawfi waljuu wa naqsin min al amwali wal anfus wa bashir sabirin alladina ida asaabathum musibatun xaalu inna lillahi wa inna ilayhi senegal lu bari sax njàngale la ba tey bu ñu déggee ñu ne leen diw nekkatu fi dañ ne inna lillahi wa inna ilayhi yàlla nee na mbas mi war nañ ko cee wax yooyu yëpp bu nit ki ragalee bu mbay mi ñorul lim doon am amatu ko nay dellu ci baatu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yàlla nee na ñii sukkandiku foofu ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun ne dina wàcc ci seen kaw ba pare ñooñu jubal naa leen ñoo ñooy ñu jub ñi loolu yëpp ay xeetu njàngale la yoo xam ne mën nañ koo jariñoo ci e, fan yii nii dugal ko ci biir ndimbalante bi nga xam ne dañ koy dimbalante ndax dimbalante tam léeg-léeg du doon xaalis rek solidarité nu gën a yaatoo léeg-léeg mu doon expérience léeg-léeg mu doon xam-xam léeg-léeg nga gis luy gaañ nit ki sax nga téye loxoom ne ko bul jaar foofu jaaral nii loolu lépp ci biir dimbalante la waaye dañoo wax tey zakat muy joxe mu doog doon ci ci biir dimbalante lu am solo waaye dimbalante yemul sax ci joxe alal kese bépp bunt boo xam ne mën nga faa jariñ lu lu nit sa moroomu doomu aadama loolu dugg na ci kaadaru dimbalante loolu takaaful ijtimaai la nit da koy defal nit mbooloo di ko defal mbooloo képp ko tane kenn defal ko ko ci lu mu xam wala lu mu am wala lu mu ko tanee lu mu mën a doon loolu moo tax lislaam doo doon gëm doon diine yërmande moo tax sax mu nangu nit ñi di wuute léeg-léeg ndax ixtilaaful ulama raxma wuute boroom xam-xam yi yërmande kese la ndax jullit ñi yàlla da leen a boole lu rëy loo xam ne mënuñu ko seddoo ñoom da leen a boole lu rëy ci pas-pas ci julli ci azaka ji ak woor ak aji màkka lim la war a fàttali mooy diine ji diiney bennoo la du diiney tàqalikoo loolu dafa war a sax ci ñu baree bari ñu xam ko du diine farfarloo du diine dara nekk ci li nga war a nekk la sellal sa xol yéene ñépp jàmm di def lu baax koo mën a laaya biire dimbali ko nga woo ko mu ànd ak yow ci loolu bu dëgëree bopp sax walla mu bañ yàlla bëggul nga jëfandikook ak moom euh, euh, li ñuy tuddee euh, lu metti onf defal ndànk rek ba mu nangoo ñëw ànd ak yow ndax yonente bi sallallahu alayhi wa yàlla loolu la ko wax daf ne ko gis nga boo naqari woon deret sax nit ñi la topp du ñëw walaw kunta faddan galiz al qalb lam faddu min xawlik fa ma rahmatin min allaahi linta lahum soo naqari woon deret doo mën a jëflanteek nit ñi doo leen woo boo blessé woon seen ay sentiment doo bari mbooloo waaye lan moo tax nga bari mbooloo ndax yow da ngaa nooy yërmande yàlla nga yor kon jullit ñi loolu lañu ñu war a bàyyi xel ñi ñi yaakaar topp leen ñooñu ci loolu la ñu ne loolu lu am solo la ndax leneen loo jàpp mën naa indi juuyoo nga defe ne ci biir mbaax nga koy def ak lislaam fekk ci beneen bunt nga koy defee te doomu aadama bi boo gisee sëñ Tuubaa si lu bari day insister nag ci baatu al amalu bil maalum mooy nit ki di jëf te buy jëf mu jëf lam xam lam xam tamit bu ko xamee ba xam ko mu bañ koo teg di ko jëfee ndax li ñuy wax nii ñu bari dañ koy jàng waaye bu ñu génnee dañuy dox weneen doxalin lislaam du affaire farforloo affaire kenn ku ci nekk taal bërëb jubal aw nit ñooñu yàlla moo leen moom yàllu la nit ñi alalu sunu borom lañ koo ci mën a rawale rek moo gën àdduna ak li ci biiram ñoom si nit ñu baax ñi si loolu la ñu nekk kenn ku ci nekk di def dara ci la nga man kémtu lay kàttan kenn ku ci nekk nag ak la la yàlla may ci dayoo dégg nga ak lim la may ci ngëneel nga xam ne kooku mbiru sunu borom la yàlla moo ko xam moom rek moo ko mën a àtte waaye yow li lay jariñ mooy topp gi nga ko topp moom dégg nga waaye moom fa mu toll fa mu toll du doon sa mbir yow yow sa mbir mooy lan topp gi nga koy topp lim la wax nga koy def tënku si te jub te bàyyi werante ak wax ju bari ndax jamono yi beru sax yàlla wax na fi mu ne nii léeg-léeg euh, doo man ci nit ñi dara waaye yàlla nee na loolu du la lor dégg nga laa yadurukum man dalla iza htadaytum boo boo tegee ci yoon jéem a la teg nit ñi ci yoon suñ dëgëree bopp bul xeex bul werante bul def dara na nga waxte li ngay wax nga xam ko te mu wóor mu am cëslaay ci diine loolu moo am solo bu ko defee loolu ay xeetu laaya biira la yoo xam ne dañ ko toftaloon ci wàllu azaka bi dugal ko ci buntu solidarité ba tey ndax solidarité du alal kese waaye mën naa nekk dimbali nit ci loo man rek bu ko defee nañu fonk ñaan yi jël matuwaay yi ñu yi nga xam ne moom lañu ñu wax di muslu ci seytaane Eh, aouzu billahi mina sheytaani rajim baat yu baax la ñu bëri dañ koy xeeb ndax liñ ko yàpp te dañ ko di ko wax baax na ndax léeg-léeg mbindeef yi doon seytaane aouzu bi kalimatillahi tammati min charri ma xalaq di ko wax ñetti yoon suba ngoon lool lu baax la bismillahi allazi la yadurru ma ismihi sheyun fi l ardi wala fi sama wa huwa alim yooyu jege na nit ñi war nañ koy mën a wax dégg nga di ko dimbalante si sunu biir di jàng lixlaas fallaqi naasi fatiha di ci jublu loolu ngir mucc ñit ñi ci des tam tam mucc ñu yéenante jàmm waaye bu benn jullit wax ne kii lam def baaxul kii lim def baax na kii tegewul ci yoon kii tege na ci loon loolu amul benn solo yow li ngay def moo am solo li ngay def ak fi nga nekk moo am solo kon ñu ngi may junj ne waxtu yi jeex na ñu tëj ko ci bismillahi rahmaani rahim allahu xayun samadun wa baaqi subhanahu zu kanafin wa waaq wa nahnu fi kanafihi almanii min kulli sharrin wa azan shanii mustamsikina bilgiyaasi ahmada xayri alanaami muntahan wa mubtada man xaalaha fi zamani alwabaai amanahu allahu min albalaai amana allahu alxaail walsaamic wannaasi ajmain shukran Allah